alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi am mbégte ci Euh, dajeeg yéen ci munaasabay bis bu amee solo nii euh, ci keppaaruk euh, al cheikh Abdou Samad ibnu cheikh Souaib Mbacké ak ci ndigalal al cheikh Mouhamadul Muntaqa bëgg gaaral loo xam ni amaana lu bari coow la ci sunu jamono jii te mooy lu jëm ci tasawuf amatan waaye it tasawufu cheikh al xadim xaasatan ndax it ko ñëpp xamee sunu boroom subhaanahu wa taala ba mu yónnee yonent bi da ko jox loo xam ni ca nit ki mën a jaar tegu ca ba texe àdduna ak alaaxira yooya mu ko jox nag Euh, weesuwut al imaan wal islaam wal ihsaan mu doon ñett yi nga xam ni ñooy diine ñooy diine ndax ba jibril ñëwee ci yonent bi soppaliku genn góor gu yiw gu ñëwoon ca moom doon laajte diineem ba ko yonent bi tontoo ci ñett yooya mu laajte woon te mooy al gëm yàlla ak lislaam jox sa bopp yàlla di wéy ci ndigalam ci sa lépp ak al ihsaan ak rafetal ga ngay rafetal ca liimaan ja ak lix eh, ba ba mu dëppee dem ba leen yonent bi di xamal waa jooja kan la dafa ne leen kii day jibril la jaakum yuallimukum diinakum dafa ñëw doon leen xamal seen diine kon euh, jimaau diin mooy ñetti yooyu yeneen ya ca des yépp ci yii la fàqe yàlla it def tàggat ay boroom xam-xam yoo xam ni seen yitte yépp dañu ko joxoon consacré ko ci bind ak tasaare ak jàngale pàcc bu njëkk ba di al imaan bind ca taalif ca tasaare ko jàngale ko ba ñu ràññee leen ci ku mel ni abul xasan al ashari ba jiite ci ay lekkool euh, am ñoo xam ni sunu boroom daf leen tàggatoon xiirtal leen ci ñu jàng pàccub ñaareel bi di al jàng ko ba màcc ci tasaare ko eh, xamle ko eh, yar ci ay nit tàggat leen ca eh, ñooña bokk na ca ña ca gën a fés gën ca siiw al imam Malik am ñoo xam ni suñ boroom daf leen xiirtal ci ñetteelu pàcc ba te mooy al ihsaan ñu xam ko jàng ko ba màcc ci xerañ ci tasaare ko jàngale ko tàggat ci ay nit taalif ca ah, te ñooña it bokk na ca ca gën a siiw al imaam Junayd Muhammad al kon donc yii mooy lislaam yii mooy diine wàll wu ca nekk sunu boroom tàggat na ca ay nit ba ñu jël seen dund yépp consacré ko ca yooya ca wàll wa nga xam ni ca lañu màcc eh, am tamit ñoo xam ni suñ boroom daf leen defal tawfiix ci ñu màcc ci yépp bind ci liimaan bind ci lislaam waaye it bind ci lixsaan loola ak Ahmad Bamba dafa bokk ci ñooña eh, am nañu taxasus Imaam Malik dëgg la eh, lépp daf ci màccoon waaye nag ak fésam ci fiq la gënoon a fés xam ko lool ba am ci école boo xam ni ci école yi gën a rëy ci école yi lislaam yi ci wàllu fiq daf caa bokk donte sax nee na ñu bind na ci tawxiid euh, kitaabul qadar euh, waaye wàllu tasawuf bu ko doon dund it waaye jàngalewu ko tasaarewu ko waaye it foñu ko bañu ko ndax bañ ko laajee ña nga xam ni ñoo màcc ci tasawuf ak nañuy jàngalee dafa ne leen loola xam-xam la ku ci nekk ak li la su sunu boroom jàppandalal ci xam-xam boo ca wéyee ca ca loola ngay ame sunu boroom ca loola ngay amee yàlla euh, jamono di dox ba ñëw ci Junayd nga xam ni dafa bokk ci ñi njëkk a jëmmal xam-xamu tasawuf ci taalif ca noona la xam-xam yi daan demee ndax euh, al iman ci wàllu gëm yàlla ak ni mu amee solo nga xam ni mooy fondement wu lislaam mooy fondement wu diine ak li muy am solo yëpp taalif ca yeex naa am lool taalif ci lu jëm ci ponki gëm yàlla yeex naa am lool saxaaba yi defuñu ko taabi'una yi defuñu ko ci taabi'u taabi'ina yi la tàmbalee te lañ ca bindoo nit néew na lool te mooy jamono ñoom imaam Malik beneen pàcc bi di alislaam moom it jamono dox na te muy jëm ci fiqhiyaat yi eh, taalif ca di ci doog a am saxaaba yi taalifuñu ca na yi mën nañu ne taalifuñu ca Euh, taabiu taabiin te imaam Malik ñoom ca lañu ca la bokk taalif ca foofa la tàmbalee boo xoolee ku mel ni Junayd euh, dafa bokkoon ci tabaqatu talaamidatil al imaam Malik ndax nee nañu ko njëkk a taalif ci wàllu tasawuf euh, mooy Zunnun al Misri te Zunnun min talaamidati al imaam Malik wa min ruwaati al Muwatta te ña taalibe imaam Malik la woon. ba pare solo ci moom Muwatta eh, kon eh, day wane ni rek ñetti xam-xam yi wala ñetti pàcc yi ci lislaam bind ca yare ca tàggate ca lu teel a tàmbali la eh, du ñu dem fu sori ndax dëgg la yonent bi moom amul sikki sàkk ni ci yii nga xam ni mooy xam-xamu tasawuf ci la doon tàggat ay ay saxaabaam loolu amul sikki sàkk waaye nag lépp rek doon wenn lislaam wii Euh, ndax jamonoom fiq amul woon lu ñuy tudde fiq loo xam ni dafa euh, nekk xam-xam boo xam ni mustaqil la wu taxawee nee la xam-xamu euh, xadis mustalaxil xadis ak usul ak xeeti xam-xam yooya yëpp amut wenn xam-xam woo xam ni dafa taxawe woon nele lenn rek a amoon mooy alfiq te du lii ñuy tudde fiq ñun tey man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin allahuma faqihu fi diin wa allimhu tawil loolu bu ko yonent bi masaana wax lépp lislaam la ci jublu woon al imaan ak al islaam ak al ihsaan dañu cay dugg euh, ba ca taalif tàmbalee comme ni ñu ko waxee pépinière ya jiw gu jëkk ci taalif ci tasawuf tàmbalee woon ci jamonoy Junayd ci ja ci jamonoy Zunnuunil Misri waaye yaatuwul woon lool ba mu demee ci jamonoy Junayd muy gën a yaatu comme xam-xam yëpp rek nañuy daar di def ndànk-ndànk bu keneen ji beneen génération ñëwee yokk ca ñeneen ñëw yokk ca di ca yokk di ca yokk ba mu xam-xam ba mu jëmat sëkk noona it la xam-xamub tasawuf tàmbalee waaye wuute ak werante ci tasawuf musuta am ci jamono ni ki mu amee ci jamono ji ndaxit nag dëgg la jamono ju nekk xam-xam bu nekk daan na am ñu daan taxaw am taxawaay bu négatif ci xam-xam booba hadis xam-xamu hadis sax am nañu ca amoon taxawaay wu négatif te ni buñ ko jàng nañu yem ci alquran loola amoon na bu yàgg ci jamono eh, xam-xamu fiq it amoon na mu muhaddisuun yi ak fuqahaaw yi seeni problème lu teel a tàmbali la depuis ci jamono yi taabiu taabiin yi seen problème yàgg na tàmbali muhaddisuun yi di di di xarab fuqahaaw yi wala lenn ci ñoom fuqahaaw yi di yàq lu ne muhaddisuun yi di leen tuumal ak jumuud ak tazamut euh, fuqahaaw yi di tuumaal mu muhaddisuun yi di tuumaal fuqahaaw yi ne ñoom euh, ubbaadu ra'yi loola waxi yaxya bnu yaxya laysi ja dana ko firndeel ndax euh, ibnul qaasim kaana faqihan sirfan ab faqih la woon kese abdullah ibnu wahab doonoon ab muhaddis fiq mu hadisa notoon ci moom eh, ibnul qasim fiq not ci moom yaxyaa daan jaabante ci seen diggante bu demaan ci ibnul kaasim yenn saa yi mu ne ko foo jógee mu ne ko ci abdullahi wahab ibnu wahab mu ne ko yow ragalal yàlla te ngeen xam ni hadis yii ngeen di dégg nii du lépp lañu war a jëfe moytu leen hadis yi bu demaan ci Abdullah ibnu Wahab mu ne ko yow foo jógee mu ne ko ci ibnul Qaasim mu ne ko ragalal yàlla te ngeen xam ni yow te nga xam ni yemu leen di wax yëpp ay raayu la gis nga wuute boobu eh, yooye lañ ci bëggoon a wu jàngale rek mooy ni raayu kese baaxul waaye xadis kese it baaxul laa bud dañu ñoo xam ni suñ borom daf leen dimbali ñu xereñ ci ñaar yëpp ñoo mën a dëppale ñaar yi ba mu am équilibre te imaam Malik daa meloon noona tasawuf tamit nag ñàkkul woon ñu daan dal ci kaw tasawuf imaam ahmad ibnu hanbal ci njëlbeenug mbiram euh, noona la meloon ci tasawuf mawqif salbi la amoon ci tasawuf jamono di dox ba am taalibeem bu ko convaincre ne ko xaarisu xaarisul muhaasibi mii nga xam ni yaa ngi koy yàq lu ne est-ce que mas nga jataay ak moom mu ne ko déedéet mu ne ko ngir yàlla danaa ko invité sama kër nga làqatu ca pantere ba ca pukus ba euh, ma ma ma dugal ko ci waxtaan mu wax nga dégg la muy wax bu boobaa nga doog a mën a atte euh, waa ji damay fàtte turam kooku woolu xaarisu nu xaarisul muhaasibi invité ko këram dugal ko ca saal ba imaam Ahmad nekk ca néeg ba foo xam ne bu ñuy waxtaan dana leen dégg waa ji di di waxtaan ak xaaris muy wax ak moom ci abwaabu tasawuf di indi ay xadiis yoo xam ni imaam Ahmad xam na ko waaye xaaris di ca génne ay maani yoo xam ni la tatruq baala ahmad ibnu hanbal qat musuta xalaat ni hadis yi làmboo na maanaa yu mel nii te lu yenu maanaa buñ ko waxee nga xam ko toog lu yàgg waxtaan wi yàgg lool seen njaati gi génn jekki-jekki dugg ca néeg ba fekk imam ahmad di jooy jooy yu metti ndax la mu dégg xaaris di ko wax ci xam-xam keroog la tuub moom imam ahmad ibnu hanbal ca mawqifam googa mu amoon ci alxaarisul muhaasibi Eh, loola munut ñàkk ndax nit ki lu mu réere rek yenn saay mu def ko noonu loola daloon na ku mel ni imaam Ahmad ibnu Hanbal ca la gëj a waxe ci niti tasawuf tasawuf nag néew na ci jamono ndéem am na boroom xam-xam bu am mawqif salbi total ci tasawuf xam ni dafay jël tasawuf jàpp ni tasawuf lépp lu ca aju baaxut loola néew na ci àdduna ndéem mas naa am waaye jamono ji eh, ca lool ci ñoo xam ni lañu jàpp ni xam-xam la xamuñu ko waaye tamit xamuñu tasawuf mu doon jeex jahlu mu al aljeexlu goo xam ni dafay rogalaat dem ba al jahlu bil bi tasawuf eh, taarif tasawuf duñu ci duñu ci bi ndax eh, ñëpp xam nañ ko jarut ñu cay sori ihsaan la defar jikko la eh, defar nit ki la ba li ko sun borom sant ci imaan mu man ko sellal la mu ko sant ci al ihsaa islaam lu mu cay def ci pàcc islaam it mu man ko sellal la ne woon ci moom te da te di faral di nekk ci nit ci sofaan ñu tàggat ko ba loolu jóge ci deñ deñ ci moom la nga xam ni lu baax la ñu fexe tàggat ko ba loola ne ci moom kon loola mooy tënku tënk tënkub wuf li war a li nar a bon wala mu nar a bon ci nit ki boo ko boyaloon fexe ba loolu nga dindi ko ci moom def ci moom lu baax tàggat ko ci ba lu baax loolu doon ci moom tabia li taxoon tarbiya daawul gaaw eh, dinañu tarbiya nit fukki at ñaar fukki at fanweeri at doog koo yewi ndax booba la seexu tarbiyaam booba la koy wóor ni kii kat defaru na mu doog koo yewi Eh, wuuteeg nag jamono jii nga xam ni eh, ñëpp a yegg ñaari fan ñetti fan nga nga nga nga nga daawaa al wusul loola bokkul bokkul ci tasawuf eh, dinañu taarif taarifu tasawuf wane ak tasawuf ñen ñooy aimatu tasawuf wane gu gàtt doog a dugg ci sëñ bi fan la bokk ci tasawuf kooka ñuy jël ay waxam nag amaana dana jaaxal ñu bari lu tax ñuy jël ay waxam ndax dëgg la ñu bari ci tasawuf jàpp nañu ni kaana aduwan li tasawufi wa suufiya ci ñooñu li tax ñu siite ko moom bëgg a jëli waxam wane mawqifam ci tasawuf mooy ni bu fekkee ni noonu tasawuf la ak suufiya yi kon alxaqu ma shahidat bihi al aadaau sa noon bu seedee ne la nga nekke baax na loola defe naa wenn seede gënu koo doon dëgg ñi nga xam ni jàpp nañu ni du noonu tasawuf waaye noon la ci ñenn ci nitu tasawuf bu ñu déggee li dinañu xam ni kat ndekete kii lii mooy taxawamit taxawaayam ci tasawuf te kooku mooy ibnu taymiya alxarraani doon dund ci ñaari diggante siècle septième ak huitième siècle moom ci majmuu fatawa ci fukkeelu xaaj baak benn dañ ko laaj ci ci ci suufiyu la leen tontu mooy wa suufiyu fi lxaqiqati nawun min alsiddiqin fa huwa alsiddiqu alladi ixtassa bilzuhdi walcibaada ala alwajhi alladi ijtahada fiihi fa kaana alsiddiqu min ahli hadihi altariq kama yuqaalu siddiqu alulama wa siddiqu alumara fa huwa axassu min alsiddiqi almutlaq wa duna alsiddiqi alkaamil alkaamil alsiddiqiya min alsaxaaba ibnu taymiya nee na ab suufi yu day ci dëgg-dëgg dafa bokk ci siddiquun ya nga xam ni ñoom ñoo topp martaba yonent ya siddiquun yi min alladina an'ama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina siddiqina ya la ca teg doog caa teg shuhadaa u yaag ya e, moom nee na suufi yu moom ci dëgg-dëgg xeetu siddiquuna lañu nee na ab suufi yu mooy ab siddiq boo xam ni dafa jagoo dëddu àdduna jagoo jaamu yàlla raw ñëpp ci dëddu àdduna raw ñëpp ci jaamu yàlla moo tax ñu jagoo dëddu àdduna jagoo jaamu yàlla mooy ñoo ca raw daal ci gàttal ñoo raw ñëpp ci dëddu àdduna raw ñëpp ci jaamu yàlla ci anam gi nga xam ni ñu ngi cay def ay ittihaadaat di góor góorlu ci jaamu yàlla nee na kon waa turuq suufiya yi ab siddiq ci ñoom ki siddiqu boroom xam-xam yeeg siddiqu buur yi kon siddiq ci ñoom ñoo gën a am ak xusuusiya ñoo gën a am ak jagle ci siddiqul mutlaq ñoom ñoo raw siddiqul mutlaq yi fa yàlla waaye nag ñoo gën a doon ñoo ñoo suufe it as siddiq siddiquun yi nga xam ne seenug siddiq kaamilu siddiq ya la te ñooñe mooy sahaaba yonent bi ridwanullahi alayhim kon nga gis ibnu taymiya fa mu teg nitu tasawuf fii siddiqu euh, ne ñoom ay siddiquuna lañu teg leen ne ku dul saxaaba yi ñoo raw ñëpp loola mooy mawqifu ibnu taymiya ci suufiya ci ci suufi yooyu mu waxati moom ibnu taymiya ci douzième mujallat page trente ci majmuu fataaw mu ne wa amma jumhurul umma wa ahlul hadis wal fiqhi wa tasawuf fa ala ma jaat bihi rusul wa ma jaa anhum min alkutubi wal atharati min al ilm wa humul muttabi'uuna li risalati ittibaan mahdan lam yashuubuhu maa yu bi ma lam yushawibuhu bi maa yuxaalifuhu nee na jumhuru umma yonent bi ak ahlul hadis ak fiq ak tasawuf nee na ñoom day ñu ngi ci la yonent bi indi eh, ak la yonent yi indi ak la ñu wàccee ci ñoom ci ay téere seeni jëfit ci xam-xam la ko teg ñooñu ñooy ñi topp risaala yi yonent yi topp gu wér topp goo xam ni jaxase wuñ kook dara wuute wuñook moom ca dara nee na ñooña ñooy ñoom ñoom ñooy borom tasawuf yi ci ñoom lañ bokk mu waxati moom ibnu taymiya ci nitu tasawuf yi ci citation boobu ñu def léegi mu ne summahum imma qaa'imuuna bi zaahiri sharci faqat ka umumi ahli alhadis walmuminina alladina fi alilmi bi manzilati al ubbaad alzahirina fi alibada wa imma caalimuuna bi macaani dalika wa caarifuuna bihim bihi fa hum fi lculuumi kalcaarifiina min alsuufiya alsharciya fa haulaai hum culamaau ummati muhammadin almaxda wa hum afdalu alxalqi wa akmaluhum wa aqwamuhum tariqatan wallahu aclam nee na waliyu yàlla yi imaamu doon waliyu yoo xam ni seen yitte mooy eh, taxaw ci sharia niki ahlul hadis ak na yi e, ñoom dañu mel comme jaamukatu yàlla yi imma wala ñu doon ñoo xam ni ñu xamoon maani sharia lañu xam ko dëgg dëgg dëgg xuus ci biir comme ñi nga xam ni dañoo xam yàlla ci suufiyanke yi ñi nga xam ni dañoo xam yàlla ci suufiyanke yi topp ndigalu sunu borom nee na ñii nga xam yàlla ñii xam yàlla ci sufiyanke yi ñooña ñooy ulama u ummati muhammad dëgg dëgg dëgg dëgg te ñoom ñoo gën ci mbindeef yi ñoo leen gën a mat gën leen tënku ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yii seeday u ibnu taymiya la ci nitu sufiyanke yi eh, bu ñu demee nag ci Cheikh Ahmad Bamba amul sikki sàkka ci siddiquun yooyu ibnu taymiya di junj te bu ñu waxtu yi mayoon danañu yaatal melo ya mu melal siddiquuna yooya ku gis melo yooya xam Cheikh Ahmad Bamba ci jëmmam jë xam ko ci ay mbindam xam ko ca ñamu yar di nga xam ni melo yooya mu wax yépp tantabiqu ala Cheikh dafay dëppook melo yi sëñ bi ci dundinam melo yi sëñ bi ci ay waxam melo yi sëñ bi ci ay mbindam meloy sëñ bi ci yamu yar ca ñamu yar loolu tax na sëriñ bi ñëw incarné tasawuf goo xam ni léppam da ko tënk ci alquran ak sunna amut fenn foo xam ni tasawufam génn na ko ci alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa amul fenn fu mu ko génnee loola tax na dundam lépp mu konsakre ko ci tënku ci alquran ak sunna ci ay jëfam tënku ci ci ay waxam tënku tënku ca ci ay jëflanteem waaye tënku ca it ci ñamu yar fexe ba loola mu def ko ci ñoom lii wane loolu eh, ci loo xam ni daf fi des ba faw mooy téereem bi nga xam ni mooy représenté mën hajam ci tasawuf te mooy téere bi ñu naan masaalikul jinaan nga xam ni ci dëgg-dëgg bu ñuy xool téere ya gën a mat ci tasawuf donte noof mu la danañ ne masaalikul jinaan daf caa bokk téere yi gën a mat ci tasawuf xam ni lépp la tënk ci tasawuf tasawufuk jëf nag tasawufuk jëf ndax tasawuf yi am na ñaari yoon am na ñoo xam ni tasawuf gi dañ koo théoriser nga xam ni la nga mën a jële ci ñoom ci jëf pour mën a yegg bariwul danañ ci cité ku mel ni ibnu arabi ku mel ni eh, afifu diini talmusaani ku mel ni ibnu sabain ku mel ni eh, ibnul farid xam ni seenu tasawuf dañu koo yemale woon wala la ca ëpp ci wàllu théorie la nga xam ni ku yemoon ci seeni téere kese kese kese pour wàllu suluk jaar ci yoon wi pour yegg ca yàlla dana jafe pour nga mën a yegg dana jafe pour nga mën a yegg ndax ñoom la ñuy melal mooy meloy ku dox ba yegg la muy yëg ak la muy xam la mu la muy la mbir ma di saf ñoom loola la ñu jàngale ci seeni téere te nag euh, euh, la muy saf ki ko ki ko mos ko xam yow mosaguloo kon munoo ko xam euh, boo bëggee ka ka ka mos la mu xam na mu koy melale yow it nga bëgg di ko melal noonu lu bari da ngay dugg ci ay pakkatal njuumte yu bari yoo xam ne ñu ngi koy accuser tasawuf di ci accuser nitu tasawuf yépp lenn la ci yoo xam ni dañu jàpp ne loola ñooña loola moo doonoon seen manhaj kon sëñ bi tasawufam da ko tënkoon ci alquran ak na musu caa génn lu tolloog baaraam lu baaraamu sànq lañ musuta am loola kon la koy wane mooy téere boobu di masaalikul jinaan nga xam ni boo delloo ca maraaji am ci téere booba da ca gis mu waxal ko boppam comme lu mel ni xaatimatu tasawuf comme lu mel ni addahabul ibris ñaar yooyu cheikh mohamad ibnu saïd al yadaali moo ko bind ak lu mel ni ixyaa ulumi diin ak lu mel ni junnatul murid Euh, ak al kawkabul waqaat bu Cheikh Sidil Muxtaar al Kunti ak al euh, junnatul murid doom jala Cheikh Sidil Muhammad al ak al xikam bu bnu Ataa Illaahi ak al risaala ak yeneen yoo xam ni min mutasaw ci dañu bokk ci ñi ko bind ay mutasawifa lañu yoo xam ni laa yashukku wala yastaribu ahadun kenn sikki sàkkawul ci kaanu min ahli sunna wal jamaa ci seen pas-pas ci seeni jëf. waaye ci seenum njàngale ak ci seenum tasawuf sëñ bi ñooña la cité ci téeréem booba di masaalik ci ni ñooña ñooy ay référence am euh, seeni téere mooy ay source dëgg la fekk na fi lu bare bare bari ci ay téere yi tasawuf xamoon na téere ibnu ara ibnu arabi waaye musu la cité ci téere boobu dara xamoon na téere ñooñu ñu tudd ñëpp waaye musu caa jële dara lan moo tax du ni da leen weddi déedéet waaye la ko ñor du seenum njàngale nañu jàngale waaye la ko ñor mooy nit ki sóobu dox ba yegg bu yeggee fa ñooñ yegg nag moo xam bu ko neexee mu wax bu ko neexee mu noppi ndax mos na lañu ñu mos wax wala mu noppi loolu moo ci nekk kon moom tasawufam tasawufuk jëf la na ñëpp jëf na ñëpp jaar ci yoon wi yaa xam tamit foo koy jaare jaare ko ci yoonam wii wala nga jaare ko ci weneen yoon waaye na nekk tasawuf rek gu tënku ci sunna sawaun intama ila al jaylaani aw intama li ahmad al tijaani aw li siwaahuma min al yaa xam fooy jaare waaye sóobul rek te jëf nag yegg te bàyyi théorie yi bàyyi théorie yi théorie yi amu ci solo amul solo ci tasawuf moo tax mu fekk fi téere yu bare bari comme ni mu ko waxee wajadtuhu qad sannafa al ahbaaru fiihi dafatira laha asraaru ka cheikhina al mujaddidi al ghazali wa bni di lmaali wa cheykhina alkuntiyu di l anwaari gawsi lwara qutbi raha almuxtaari wa cheykhina alxalifati almuayyadi bilxaqi min rabbi lwara muhammadi wa cheykhina almufassiri alqur'ani muhammadi almansuubi liddaymaani ba wax jooja na mu jeexee kon ñii ñooy ay royuwaayam ñii ñooy ay référence am ci ay téeram la sukkandiku te ñoom seeni téere lépp dañ ko tënk ci tasawuful junaydi te mu doon tasawuf gu tënku ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tënku ci alxuraan ci léppam kon sëñ bi tasawuf googu la jàngale tasawuf goo xam ni comme niñu ko waxee lépp sunna la tasawuf goo xam ni eh, da ca tënku ci alquran ci léppam tasawuf goo xam ni sosu ca dara sosu sosalu ca dara boppam daray boppam nekku ca dafa fekkoon kay yu deewoon yoo xam ni dañ ko ihmaaloon cay jamono ci wàllu tasawuf mu dekkalaat ko lépp dellu tënkuwaat rek ci tasawuf gu wér googa daf fi fekkoon yu raxoon tasawuf yoo xam ni euh, tënkuwul ci alquran ak na fekk fi ay adiya at tasawuf mu leeral gàcceel leen wane ni lii ñu nekke de du tasawuf gu wér looloo tax ci biir masaalikul jinaan Euh, mu critiquer ñi nga xam ne ñu ñu bari ci ñi nga xam dañuy woote woo tasawuf mu doon mën manhaj boo xam ni mën manhaj bu raar la ci mu mutasawifa yi li tax imam Zarruq am tur mooy critique yi mu daan critiquer wàllu tasawuf ci boppam boo demee ci ay téeram lu mel ni uddatul murid euh, da nga ca fekk uddatul murid saadiq da nga ca fekk lépp ay critique la ci ñi nga xam ni ñooy ñii woote woo tasawuf te dëgg dëgg dëgg la ñu nekke loola du tasawuf gu sëriñ bi tamit dafa jël lu mel noona ci biir masaalik bépp tasawuf goo xam ni dafa wuuteeg alquran ak sunna sëñ bi leeral na ko ndax it nag dafa xamoon alquran ak sunna da ko xamoon lool xam gu wér tamit nag léppam ci alquran ak sunna la ko tënkoon pas-pasam mag ay jëfam it euh, lislaamam ak tasawufam ak lépp rek alquran la woon ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko xamoon ku yër ay téere ku xool la mu fi desaloon ci ay téere da nga xam ni kii kat xamoon na alxuraan ak sunna ñàkkul woon ay téere euh, kutub yi nga xam ni ca lañ daan xamee la nga xam ni mooy alxuraan ak sunna yooyu yëpp kaanat mutawaffira indahu malgré le téere yi tasaaroo yëpp fekk nañ ca Buxaari fekk nañ ca muslim ak seeni shuruu fekk nañ ca it euh, sunanu nasaa yi ak sunan ibnu maaja kon loola sëñ bi daa xamoon sunna doon ko dund xamoon alxuraan ndax la mu yoroon ci tafsir bari na lool mu ne su koo lim ci jataay bii kon sëñ bi fam alxuraan ak sunna la woon loola tax na ci biir fam li mu doon gën a yaatal daan ko jàngale mooy nit ku nekk nga fexe xam am xam-xam ba pare ndax ku doonub sufiyanke te fekk xamuloo loola mooy indi dérapage yi am ci yoonu tasawuf képp koo xam ni it da ngaa am xam-xam it te soobuwuloo loola mooy indi ak caay-caay gi nekk ci yenn boroom xam-xam yi ba tax mu indi waxi imaam Malik ja ci koo xam ni soobu na te fekk amul xam-xam ci eh, eh, zandaqa ngay mujje képp koo xam ni it dangaa am xam-xam te soobuwoo ci caay-caay ngay mujje waaye loola tax mu soññee lool ci daruratul jam'i bayna al ilmi wal amal laa budda ñu boole ku bëgg a sóobu ab sufiyanke dafa war a boole diggante xam-xam waaye ak jëfe xam-xam boobu wal taalaman bi anna ilman wa amal huma wasilata saadati ajal fa fiihi majtahid wa fi tasfiya min kulli aafatin wa fi tanqiya wa saxihan wa saxihan bi sidqi wal ixlaasi kilayhima tadfar bil ixtisaasi wa bi itibaaci sunnati almuxtaari salla wa sallama alayhi albaari nee na yow aji soobu ji na nga xam ni xam-xam ak jëf ñoom ñaar ñoo ànd doon moyens yi nga xam ni ci nga war a jaare ba mën a taxe te lii rek mooy wax ji wér mu ne kon na nga góor góorlu ci xam lu waaye it góor nga góorgóorlu ci jëfe la nga xam na nga góorgóorlu ci yar sa bopp segg la wérut la baaxut ci jikko ci jëflante fexeel ba am ba tasfiya ko tasfiya ko ci bépp gàtt gàkk gàkk segg ko ci bépp ga walis bépp gàkk gàkk fexe setal sa bopp defar sa bopp nàmm say jikko defar ko ba mu sell set te nag na nga wéral sa pas-pas ci dëggu ak sellal na nga dëggu waaye na nga sellal say jëf ndax ñoom ñaar kat boo ca saxee danga mën a am ngañaay ci bokk ci ahlul ixtisaas te mooy ñi nga xam ni ñooy awliyaullahil kummal nee na it yooye yépp nag farlu gaag góorgóorlu gaag jëfe gaag tasfiya gaag tanqiya ga ak sidqu gaag ixlaas ga lépp na ko tënk ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amut lenn looy sañ a def te tënkoo ko ci sunna yonente bi sallallahu alayhi yal na yàlla julli ci moom yal na yàlla dolli koog musal moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu insisté waat ci ne wal ilmu afdalu axi min al amal wa ussuhu fa man lahu xasal lakinnama thamaruhu kan nafi fii amalin bihi fakun zal jam'i nee na xam-xam moo gën jëf loola mooy ni mooy fondement am ndax xam-xam bu àndul ak jëf mun jëf ju àndul ak xam-xam mun ta kon xam-xam mooy fondement jëf eh, kon képp koo xam ni am na xam-xam kooka day texe na kon sëñ bi dafa soññee ci xam-xam dundul tasawuf goo xam ni seeni njiit dañ daan tere seeni ñoñ ñu sàkku ji xam-xam ndax dëgg la loola it am na ci suuf suufiyanke yi ñoo xam ne daawuñu bëgg seeni ñoñ di sàkku ji xam-xam dañ leen daan tere jàng hadis dañ leen daan tere jàng fiq dañ leen daan tere jàng pas-pas loola it mas naa am ci tasawuf boo xoolee ku mel ni ku mel ni a Ashibli eh, am na bayitam yu ñu rootal ci yenn téere tasawuf yi ñu ñu ngi ci eh, eh, mu daan wax mu wax benn taalibeem bu masaan dem ca daara nii daan dem ci daara nii daan jàngi ci moom bis taalibe ba tere eh, tarde xalaqa ba ba mu daan amal moog taali mook moo mook eh, eh, sullaak ya ba mu yegsee mu yedd ko ci la mu tardé laaj ko lan moo tax mu tardé mu ne ko damaa jaaroon ci daara nii doon déglu ca moom ay hadis mu ne ko ana la nga fa jàng mu ne ko mi ngi nii mu wan ko ay awraax yu mu yu mu jëlee woon ci daara Qutni shibli jël ko xotti xottat kayit ya sànni ko wax ko bayitam yooya tasarbalta lil xarbi sawbal xaraq wa jubtal bilaada li wajjil xalaq fa fiika nataqtu la daaman nataq fa fiika hataktu qinaa ala xawa wa anka la nataqtu la daaman nataq ida xaatabuni bi ilmi lwaraq baraztu ilayhim bi ilmi lxaraq loola la ko la ko tontu ngir jàjj ko ak ŋàññi xam-xam xam-xamu sharia dëgg la loola mas na am ci tasawuf am na ci tasawuf waaye nag sëñ bi moom tasawuf soññee cim njàng lamu mu soññee cim njàng ci ay téeram kenn munu koo lim la mu soññee ci moy ci sunna lamu soññee ci tënku ci xam-xam eh, kenn munu koo lim kon loola mooy tasawufu sëriñ Tuubaa ci wàllu woowa soññee ci xam-xam loola yemu ca comme niñ ko junje léegi dafa bokkoon ci ñi nga xam ni li ñaan autocritique da doon critiquer tasawuf ci boppam ci ñi nga xam ni dañu am manhaj boo xam ni manhaju Euh, ah, yóbboo nañu baree bari ba ñu déraper ci yoonu tasawuf bokk na ci euh, muy muy muy jàjj di di wax ci ñi nga xam ni dañu rax ci tasawuf te bokkuñu ca di woote ak tasawuf amaana yore ci yoon woo xam ni aimatu tasawuf euh, nekkuñu woon ca yoon woowa mu ne wa baaduhum qad garrahu shaytaanu aadana min kaydihi rahmaanu fii shiddati zuhdi wa kasrati alwara walwaadi wal indaari in shay'un waqa taraahu yabal kulla maa qad li kay yaquula annaasu hada al arwacu e, ay yu bari la waaye la mu ca tënk rek mooy am na ci ñoo xam ni dañuy askanoo ci tasawuf te fekk saytaane leen nax yal nañu yàlla musal ci pexem seytaane wane ak zuhdu wane ni ay sëriñ lañu wane ni ay sufiyanke lañu wane ak sàmm fu ñu toll ñu ngi fàttali nit ñi di waaraate di xuppe ci saa soo xam ne am na lu xew bañ sax yegg ci bañ a lekk min tayibaati ma razaqana allah bañ di lekk ca yooya loolu yëpp jàppe ni ak zuhdu la ba nit ñi mën leen a wax ni ñii kat ñu sàmm lañu e, waaye fekk na e, seen loola seytaane rek moo leen ca war kon sëñ bi doonul woon ab suufi yu boo xam ni e, dafa tënkoon ak fam Ah, boyal ko ba lu neex nga dugal ko ca lu la neex nga wax ko ca ak tasawufam tënku gëmu tënku woon ci alquran yeggoon na ci musuta jiital dara ca ci kaw alquran musuta jiital dara ci kaw alquran léppam de ko tënkoon ci alquran ba yeggoon na ci wir wirdam bii di alwirdul maaxuud dafa bokk ca chartiya nga wàcc am eh, ñaari juzu yi alquran bis bu nekk nga jàng ko yow mi nga xam ni da ngaa jël wirdu maaxuus kon min shuruti al wird bis bu nekk nga jàng ñaari juzu ci alquran eh, kon eh, tasawufam tasawuf alquran la tasawufub sunna la tax na mu naan fa man araada alqurba min mawlaahu fal yaqra il qur'ana laa yansaahu ku bëgg a jege yàlla na sax ci njàngum al alquran wax na ni adim tilawatan li dal kitaabi walaw thalathatan min al ahzaabi nee na saxal jàngum alquran doonte ñaari ñetti xisbu rekk ngay jàng ci bis bi waxaat na wa baadu man tasawafu wa zaamu bi annama hum fihi minhu aadamu wa dalika dalilu zuurun wa kadib xad xarrahum iblisu fihi faqtarib nee na am na ñoo xam ne dañuy woo teg tasawuf yegg ci njortu ni lañu ñu gën la ñu nekke ci ay ahzaaba gi awraat moo gën a màgg njàngum alquran waaye sëriñ bi nee na loola ñu tegtaloo day ay nar laa fen seytaane leen nax yow daal boo yeboo nga sax ci jege ci lu lay jegeel yàlla ta sax ci njàngum alquran kon tasawufuf sëñ bi tasawuf la foo xam ni eh, lépp ci alxuraan lañ ko la ko tënk mosu caa génn benn yoon loole ñu ñëpp seede nañu ko it nag ñëpp seede nañ ko ña ànd moom ak ña àndul ak moom dégg nañ fi rekku ciy wax sëñ bi dundam lépp alquran ak sunna la ko tënk te loola mooy li wér nag léppi dundam ci alxuraan la ko tënk ak ku ko mën a wax ak ñu nangu ko ak ku ko mënta nangu it sëñ bi dundam ci alxuraan ak sunna la ko tënk mosu caa génn benn yoon euh, te mbiram tamit dafa neex a dafa neex a layal dafa neex a expliquer ndax sëñ bi jëfam ay ndigleem dara mistigu ci mistigul ndax dafa leer bari naa li may wax ni ah gisaguma li mu bind lépp waaye lépp lu sëñ Tuubaa bind man mii de man naa koo layal delloo ko ci alxuraan ak sunna ak jëfi saxaaba yi te yàlla ak may dimbali ba gisaguma lu ma mënta layal ci mbindam kon sëriñ Tuubaa mooy kooka fa mit mooy kooka booy gëstu alxuraan ak sunna ci tasawuf boo ñëwee ci sëñ Tuubaa incha allah da nga ko ca fekk boo demee ci ay mbindam da ko ca fekk boo xoolee ca ñamu yar da nga ko gis ci ñoom boo xoolee ci turaasam yëpp alxuraan ak sunna rek ngay gis ni ci la tënk boppam kon eh, ñu ngi ñuy junj ni waxtu wi liñ ci amoon mat na waxtu wi dab nañu ñu ñaan yàlla euh, mu defal ñu tawfiix defal ko ñëpp rek ba ñu am ay nopp yoo xam ne dinañu mën a dégloo ak taataan lii nga xam ne moom lañ fi wax wa sallallahu wa sallam ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain jërë ngeen jëf waaleykum asalaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf docteur Abdoul Ahad waxtaan wi jot na sëkk te am na solo lool